nekk naa nekk ndax nekk bi ma nekk nekk nekkin jigéen. c'est parti pour votre émission nekkinu jigéen mbokki internet yi xale caprice futur driyanke comme ni ma koy waxee saa su ne damay am mbégte ak contentement di def ak émission. tey nag comme d'habitude ni ñu ko fas yéenee defee dañu fas yéenee dugg ci thème bu nga xamante ni bu ñu amal solo lool lool te naa ni yéen tamit dina leen neex muy abandon de famille bi ñu constaté maanaam borom kër nga xamante ni dafa takk deuxième femme. bàyyi famille am maanaam première beeg ay njabootam ñoo xam mën na nekk sax yenn saa yi ñaari soxna mais di moment où takk na beneen muy xale rek da leen di ba à côté dem ci xale bu bees bi. léegi ñun problème bi mooy dañ bëgg a xam est-ce que paa bi dafa yàgg mu lu metti looloo tax ba mu amee ku bees mu dem fam wala xale bu ndaw bi moo ko wan lu war a tax mu dem fekk ji ko toog definitivement. ci loolu nag wéetuma ci comme d'habitude nu ma koy defee samay chroniqueur laa ciy àndal am naa ci sama droit monsieur Samb dalal ak jàmm. waaw maa ngi ziar fitir tooga ma fitir lan ak lan ak lan nu mu wax di mbokk internet jàpp ngeen man de jàpp ma ko. merci xam ak jàmm. jërëjëf Ndeye maa lay nuyu di nuyu sàmm mbokk bi ñoo ko déggandoo monsieur Samb man laaj bi ma am rek mooy est-ce takk xale bu ndaw jar na abandonné sa famille. Euh, sa mbir soo mm-hmm. mais est-ce que tamit war a abandonné. Mm-hmm. li ma war a parce que tamit bu ñu Sénégal bu nekk dëkk boo xam ne doy waar. am ñoo xamante ne ñu ngi koy def seen tay am ñoo xam ne ñàkk jom la. Mm-hmm. suppose boo demee yow boo bàyyi sa soxna tey koo xam ne mu ngi amee nga am ngor. ak ñàkk ngor ba nga xam da nga fay bàyyi man koo xam ñàkk jom laa amoon dund am na loo xamante ni ay def-def la loolu waxante dëgg la. def-def maanaam soit plus clair. si mën nañ ñëw naatal la am ñoo xam ne seen bopp ñoo koy def. lay naatal. ñoo ñoo koy am ñoo xam seen bopp ci boppam mën na mu tey jii nii gis xale bu jigéen ñi mu presque loolu dafa am benn fekk. ba xamante ni bëgguma woon suñu jëmee foo ma suñu. yokkal baat bi li ngay wax loo xam daa am benn benn fekk. moo xam ne foog nga souligner ko boobu moo ko wax tamit foog nga souligner ko mm-hmm. parce que tamit day yee ñoo xam ne ñu suñu mbokk internet ñi nga xam ñoo ñu seetaan. Mm-hmm. parce que dama am benn waaye nga xam ne day sax euh, monogame suñu soxnaam mm-hmm. waaye ñu ngi jëlee macha allah si dem cadre tabax R plus 2 jël njabootam yóbbu leen mais ba famille bu góor bi gisee affaire bi yéenuwul loolu ko jigéen ci ñu dem ci fexe fexe ba dëggal leen takkal ko ñaareel. mu ko takkalee ñaari ñu dem teg ko fële te ndaw si monogamie la si ñëw moom mais am na kersa jël jëkkër di ko yóbbu tribunal mu jëm ngi ndëpp ndëpp di laaj war kon kooku du tayeef xam nga la xam nit ñoo koy def te dafa bëri fii ci dëkk bi kon bu ñu jékki-jékki blâme mais nan xool source bi lan moo ko indi dafa ko jéego muy souffrir moom moom ne soo waxee mën noo man sama jëkkër rek laa bëgg a jox ndeysaan yàlla def xëy na moom mooy seetaan yàlla na yàlla def nga sa jëkkër nag ak sa njaboot parce que loolu mooy mujj gu rafet am na solo am na solo mooy du yëpp a naturel il faut oser le dire mais comme Sénégal dañu tàmm di juger mooy tax du ñu gëstu lu bari soxna na koy comme ni ko déggee rek maanaam ay fait la en fait réel takk jabar moo xam muy xale mais comme ci mun di doon yow borom kër gi nga jël say bagages yëpp dem féetewoo foofu bàyyi sa famille bi nga amoon yow loolu noo ko gisee waaw à première vue ah, ni nga ko waxee du yoon du yoon ndax famille bi nga am tey muy sa soxna ak say doom daa am la warloo ñoom mm. te bokk na ci comme li mu wax bi mu ko abandonné sonn na bokk na ci tey nga war leen a taxaw taxaw sa soxna taxawu say doom yaa leen war a dundal war leen a waaye nag boo gisee tey maanaam damay bëgg chaque jour rek ñuy étudier cas par cas ndax tey ñu koy wax l'Afrique à ses réalités am na ku jug tey dem defu ko ngir tayee fa kooku ne nañ ko accorder loolu parce que tamit ay africain lañ xam nañ ne si des qui existent mais am na ki nga xamante ni tey day topp bànneeku baax na lay topp ba jël ay bagages am def fàtte ne am na loo xamante ne nii waroon na ko ci ñi bàyyi ginnaaw fàtte ne tey ñooñu moo leen waroon yor yiir leen kooku bànneexu bakkanam kese parce que la fille rafet na xale ma dem topp ko te bu fàttali ko ginnaaw tuuti rek nga ni ki mu bàyyi ginnaaw ba ko doon jël moom it xale la woon am solo mooy ki topp bànneexu bakkanam est-ce que foofu aussi ay euh, ni ñu koy waxee maanaam gis-gis yu bees lu loo xale bi di wan nu nga xamante ni xamoo woon ko ci première bi du moo lay poussé à ce que nga préféré yam ci moom. mais lu màgget lépp tey beesoon na lépp. Mhm. ki nga gis tey bu bees ba tax nga bàyyi sa soxla. Mhm. moom it suba day màgget daal di. am na solo loolu sàmm lay wax ci loolu découverte bi. waaw découverte tamit lu bees dafa bees rek moom lu bees dafa ko bëgg parce que boo nee ba am sa yëru bees rek. Mhm. boo koy sol da ngay xaw ko li ko def. te olah la olof nee na lu bees neex ba mu des bàmmeelam. waaw loolu am solo mais tamit lépp la ànd ci xel. am na solo lépp looy def te jiite ci ngor. teg ci xel. parce que allez-y allez-y. waaw parce que tamit su ma jiitalee sa bëgg-bëgg rek. da ngay sàmm. ñu ñëw si beneen côté aussi allez-y nga terminé. soo nee démb moo tax naan tey dafa xala am solo. démb moo tax naan tey. parce que nit ki jigéen soo ko bëggee ngir taar. billaay doon si loxo ci wax. la beauté d'une femme est si éphémère. nga koy bëggee kon mu leer. non mbëggeel mooy bëgg te yàlla tax. ok bëgg ko rek nga nit ki soo ko bëggee ba yàlla bëgg te yàlla tax. Mm-hmm. ba fu muy am soixante-dix ans quatre taar taaru démb bi ngay gis. Mm-hmm. mais tamit am na sama mbokk góor yu góoree de.

loo leen lebaloon moom lay fay dafa am solo te kii raay njabootam lay laaj te non seulement su nekkul sa suñu borom dina lay laaj nan nga yore sa doom la nañ ciy bàyyi xel bu baax buñ topp suñu bànneexu bàkkan ba lor suñu bopp lor suñu njaboot. bul xool sa bopp te taal la taal taal bu jeex la. nga xoolal macha allah fii ci biir yànke. xoolal ma soxna Ndogoy allah. mais gëm naa ma jour loolu. <laughs> tey léegi. mais boobu wax nañ seen monde bu ci kanam rek suñu bos dafay éternel bul dugg ci gàmm boobu <laughs> noonu di mbokki internet yi seetaan seen télévision Sénégal TV que ñu ngi seen émission nekkinu jigéen comme ni ñu ko waxee rek di wax ñi nga xamante ni dañuy takk beneen jabar rek abandonné seen famille te lu muy nekk affaire bu doy waar mais soxna na bu ñëwee ba léegi ci fay am na ci yenn parents yi nga xamante ni dañuy nekk ak seen njaboot mais duñ fa am jàmm mais malgré tout ñoom loolu dañ koy camoufler di dund avec ku nga xamante ni may na leen jàmm loolooy tax dañuy riposte est-ce que loolu aussi raison la quoi ci père de famille. xam nga maa ngi la koy wax démb rek ci plateau bi. Mhm. nit ki nga nekkal deful li ko war. Mhm. yow bu mu la teree def li la war. am na solo xam nga nee nga da ngay nekk ak jigéen ci kër gi. Mhm. mu mhm. deful li nga war. Mhm. mais yo li la war ci moom muy nga yor ko yiir ko. yiir njabootam defal loolu donte ne da ngay takki beneen soxna. mais comme fase woo ko rek. dama bu ne bu la neexee. parce que tamit bu dee daf lay sonal ba munoo nekk la meilleure solution mooy ko nga bàyyi ko. d' après man. mais comme bàyyi woo ko sa soxna la ba tey. la war ci moom dañ koy def. am nga beneen soxna bu mu la teree dee ko pàcc. équilibre boobu noonu dafa am day ko jox ayam day jox keneen di ayam mais quant à di naan daf may sonal daf may sonal moo tax ma dem du solution parce que dès l'instant wu fase woo ko rek yow am na lu la war ci moom te nit ki face à tes responsabilités un jour day ñëw on te mettra face à tes responsabilités bien sûr te diine da koy wax sax ju jeng bi moom daanaka dañ ko taamu ci ci mariage mais gisoo ni loolu ña ñàkk responsabilité moo koy waral souvent nekk responsable de bataille parce que boo nekkee ci situation yu critique yow yaa war a jël say responsabilité nga ci génne da nga génn ci d'une manière boo xamante ne nii doo tasee gis ba rus ndax tey ki nga xamante ne dafa abandonné jabaram dem ñi koy gis famille bi ñi ko xam ñëpp xam ne kii kat ku ko xool dina xam ne kii il est pas responsable loolu rafet ci dara te tamit dañuy ñëw ci beneen côté bi ndax ñett lañ ah mm-hmm. kii boroom boroom kii première femme bi mais am na deuxième femme. deuxième femme bi nga foog ne soxna jigéen ju baax dina nangu. Mm-hmm. war naa nangu kenn takk la. Mm-hmm. abandonné famille am. Mm-hmm. abandonné ay doomam ñëw ak yow nga accepté ko nangul ko loolu moom. jigéen moo texe du xel. xam nga tax du xel da ngay xalaat ne boo doon toogoon tuuti neexee ñëw ci man. ëllëg capable na bàyyi ma man. demaat ci keneen. yow warul tënk loolu parce que ni mu ko defee kee. il est c'est possible que mu def la ba. parce que am na ñoo xamante ne moom. ni ñu mel loolu lañ mel ñu changé. kon jigéen ñi tamit am na yoo xam war a di koo dal. am na solo monsieur Samb sànq da nga wax wax bu am solo mooy góor bu irresponsable ñàkk jom si nga ko fii et pas mal de choses mais aussi d' autre part da ngay gis ni kilifa gi si boppam ñu mu nekkal muy njabootam si boppam jabat gi d' abord faalewu ko ay doomam moom on a disconvient même pas. léegi xam nga yàlla moom moo bind te yamadu am na ñoo xamante ni dinañ jéem a faj maanaam ñoom nekk fa di defanteeg seen aawo mbala seen i doom ñoom dañuy préféré pour beneen deuxième femme dem réfugié wu foofu noonu lan ngay wax si genre bu ñooñu waaw loolu si tamit bi nga tamit mu nga def gën a laaj sax am solo maa ngi foofu mm-hmm. dafa ne jigéen ju am xel effectivement su nekkee ne ko góor bi def na nii aawo mu ñëw ci yow réfugié yow yow nga nangu yow nga war a mën a xam ne est ce bi ma ko def lu loolu dama bëgg suñu mbokk internet ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax. mais bànneex moo neex ba contrôler. mais ma ñëw rek mais ma ñëw bànneex mais lan mooy bànneex. waaw mu ñëwoon bànneex àdduna. mun nekk. allez-y dañuy baax a bànneex am rek sax xam ne lu muy wax bu baax. waaw c'est-à-dire que dama la wax benn affaire yow loolu ko am xel dëgg dëgg ko def. yëkkati baax te doon am xel dëgg dëgg ko def parce que xam nga ko boobu ne mais nag Sénégal. boobaa ko jéem da ngay ndamoo ndax da ngay ndamoo. victoire la nah, victoire la te fekk na yaa ngi rey sa bopp nu muy rayee boppam la. ah mais yow noonu victoire. yéen imagine ko abaaneem jabar jabar abaaneem njabootam ñëw ci yow refusé ci yow. mais monsieur Samb dëgguma la ku nga xamante ni aawam da daan ko maltraité c'est-à-dire parfois da ngay. da ngay dem ba dañ koy gis. maa ngi ñëw ci góor a bokk. Ah. c'est que c'est que juste xam nañ gis su waxee relaté benn feew réel da nga ko ci appuyé loolu laa ko bëgg appuyé mhm. may doon la xel ne suñu mbokk jigéen ñi loolu def loolu xamal ne mhm. yaa ngi dalay lor rek mhm. ko sa jomo moo tax ne ko sa taaru nekk da la koy def tout souvent parce que kooku noonu la mel benn yow lu question irresponsable dëgg na am na jigéen ñi ñàkk kersa jigéen ñu mënul ñu mënul téye góor ñoo xam ay stress la xam jigéen da war a doon anti stress. anti stress mais dañuy ñëw rek ci kër gi stressé. boo loolu bëgg xam nga loolu dèjà. dafa a góor. mën nga wax ne góor bëgg. nga doon. wax leen ne góor dal la bëgg nga xam naa say <laughs> yaa xam naa ne jigéen. góor dal la soxla. góor su ko tegee fitna rek dox na. tamit nañ ko de góor yu bëri jéeg-jéeg gàddaay génn seen kër yi mhm. parce que tamit am na teraanga la quoi fii am na la mhm. nit ki su yàlla soo la denkee borom kër mhm. xamal ni ngay doxaleeg moom ni ngay waxee ak moom xam ne kii mooy jur say doom nga teg ko place sa am na mais ak nu mu mënta mu mënta demee ne kii sama borom kër nga jox ko respect delloo ko cër gi xam ne yàlla moo leen boole du saay te olof day faral di wax ne ku ñu say doom seen jëkkër yàq say doom. muy muy wax joo nga xamante dañ koy kafe mais jar na bàyyi a nañ ci bàyyi xel bu baax. toppatoo ci gars yi daal. ni aussi cause yi bokk na ci le fait que ku góor gi di yeex a takk jabar comme ni ñu koy waxee l'islam ni mu koy santaane quoi jabar dañ koo war a nekk. Euh, comme yéex a takkal deuxième femme. voilà maanaam yow da sa jabar mën na nekk première parfois da ngay gis ñoo xamante ni am sa ñaari soxna mais bu demee ba âgé. xam nga jigéenu femme sénégalaise lañ ma baal ci kàddu bi dañoo teel a yóbbu seen bopp retraite léegi de ce fait moom bu demee ba am xale bu ndaw day préféré féetewoo foofu est ce que yaakaaroon na aussi yéex décalage boobu di am ci ñaari jabar yi yéex a takk ji andiwul loolu noonu. waaw man du ma ne loolu da war a indi. Mhm. parce que déjà comme ni ma ko waxee sànq nekkul loo xam ne dama ko trouvé normal. Mhm. mais nag li nga wax lu am solo la parce que.

li la war sa digganteeg moom donte ne moom deful li la war sa digganteeg yow. yow defal li la war sa digganteeg moom. de ce fait même bu dee xale bu ndaw nga takk bu am vingt ans wala dix huit ans. joxal kii ayam. jox kii ayam naka doo am nañu inspecteur mais supporté nga ko ba amal moom doo. sa fit da nga di supporté nga ko di raf. supporté nga ko ba doxaani ko supporté nga ko ba takk ko supporté nga ko ba amal moom doo ko mu màggee nga war koo mën a supporté ba mu dee. naka parfois day am lu solo la. waaw ba tey. Mm-hmm. mais nattu nattu bu amee. Mm-hmm. comme yàlla nattul la li ma koy wax léegi rek yàlla mais nattu moom xëy xëy bon. ku jigéen xëy xëy bon. nit mënul. sa jikko xam nga bi mu lay taxaar mën nga kaa déglu ne ah jàpp na yow kat comme anti stress nga mm-hmm. nga indi ko ci kër gi mu nekk stress mais dañ kaa nangul un an mm-hmm. deux ans trois ans ba am ak moom jabar kon continuer di ko nangul bu si ñaaw woowu doonte ni da ngay muñ ba woow ko mm-hmm. muñal rek comme yaa opté loolu noonu te ci loolu aussi jéngu bu fas moo koy andi am ah, ou bien waaw ba tey ba tey parce que déjà di nga gis comme ni nga koy wax dina am soxna nu muy doxaleeg borom këram. wala ay doom nu muy doxaleeg seen bàyyi nañ ci jënd lan la bàyyi bi def. buñ mm-hmm. ne rek buñ ne que. aussi li mu wax dëgg la. Mm-hmm. nañu jënd lu bàyyi bi def parce que nit mm-hmm. mais bu doom day demee ba am audace taxaw si kanamu baayam jox ko cër nañ xool li bàyyi bi def lan la. mais xam nga sànq da nga wax lu am solo mooy ak sa soxna lu mu la woon man di def du raison pour nga dem abandonné mais aussi doom aussi bu ñëwee ci loolu ba léegi est-ce que moom tamit def defu bàyyi war na mën a tax doom bi comporté woo noonu ba bàyyi di révolté. ba tey mais ça dépend ci lu bàyyi bi def. tamit jërë bàyyi ko. bàyyi bi kon foofu daal war ci ko pardonné ci ak ci loolu noonu. non xam nga nit ku nekk ak li ngay réactionné. man dama lay wax souvent nit ngay jëflantee bu deful li ko war yow bu mu la teree def li la war. Mhm. waxuma ne doom bi lu mu def noonu la rek. je dis que ak sa papa lu mu def. loolu moom la yow li la de sa digganteeg moom jëf jëflanteeg moom ci maanaam ci sutura wala boobu ci mais comme dañuy étudier dañuy wax cas de possible cas nga xamante ne ni ñoo possible yi am te bokk na ci comme ni la ko waxee def ñombe boo xamante ne ci yemee am na solo tax kersa boobu noonu am digganteem ak moom. Mhm. de monsieur Samb man fu yow des fois koy gis de man j'en témoin jël ay dem ci beneen jabar bu ndaw bi dëkki fa. Mhm. toog fa ba mënoon a tudd dara maanaam phase finale ni ko tubaab di waxee. ñu yenuwaat andi si aaw bi mu mu mu yow loolu nan nga koy jàngal. loolu ñax ngor. ñax gu am mhm. jom nga rek mel. ba muy neex. nga dem toog mu naqari nga dem xalaatal sa bopp. ma ngay dem sax man mu nekk woon damay jël buum rek xaru benn yoon. loolu nga koy conseillé ah, na ko yow loolu ci loolu. waaw delluwaat bi mën naa ñaan. Mm-hmm. delluwaat bi moo mën ñaan comme yow buub nga say bagage ba dem dëkk dee muy neex mais muy fa nga xarit looy ñëwaat loolu war nañ kaa sa def sax. ba day fekk ko waaw. waaw man dafa dee. parfois parfois da ngay def erreur yoo nga xamante ne avec le temps ngay xam ne erreur nga def. Ah. mais y a des erreurs yoo xam c'est impardonnable. te boobu da cee bokk. da cee bokk. ok lu ñu desee ci ay minutes dafa bari monsieur Samb. Mhm. ginnaaw li ñu fi wax yëpp yëpp lan ngay proposé ci yi nga xamante ni loolu la ñuy def. voilà lan laay ak sa mot de la fin aussi. lan laay proposé mooy benn affaire nga jigéen ñi doon ay anti stress. yéen ngeen war a nekk lan. waaw ah, mais mais ñun. et vous dans tout ay doon kilifa rek. ok doon ay roy gaay rek. mat kilifa rek. non non kilifa jeex na soo nee kilifa na. xam nga kilifa laa kilifa laa gi jëf-jëfi kilifa. bu mag ci lépp. <laughs> xam nañ njaboot ëllëg lu jar a suuraale la. <laughs> nit ki soo demee bay tàkk soxna njaboot nga jox leen une bonne laa loolu laa ciy wax mais jigéen doon anti stress yaatal seen dënn xam ne yàlla moo leen teg loolu pour ñuy doon anti stress bi dalal góor yi. am na solo na way dalal suñu suñu suñu gaay waay. te mot de la li ma lay wax rek mot de la fin bi équilibre la rek. Mm-hmm. équilibre la rek ndax yow am na sa. première femme boo amee deuxième femme bu mu la teree def li la war kii donte ne kee nee nga da lay maltraité wala da stress la yow li la war sa diggante moom def ko wala nga fase ko bu dee mënatoo say ak ah moom. bu naa def fase na kenn si mais dafa am yoo xamante ne comme bëñ bi metti la rek. mu la metti la mu ci gese moo ci suuf sama moo sama dernier mot daal muy ne kenn ku ci nekk def li nga war. Mm-hmm. doom yi nañ respecté seen papa yi. Mm-hmm. borom kër yi nañ yemale seen soxna am na solo kon mbokki internet yi ñu doon seetaan lii lañ leen andiloon muy abandon de famille nekk affaire bu doy waar ndax famille dafa sacré kon nag ci côté ku jigéen ki comme ku góor ki nañ delloo si xel yi xam ne lu solution mënul am rek nekkul yàlla lu problème bu mu créé rek def na solution ci wet bi di leen jox dig daje ci beneen numéro wasalaam. nekk naa nekk ndax nekk bi ma nekk nekk nekk bi ma nekk nekk na jigéen.